bésub alxamis gi fukki fan ñeent ci weerub septembre méngoog bésub génnub àdduna maam Abdou Aziz Sy baax nekkoon troisième xalif général Tidiane ba tax na doxantu woon nañ fii ci zawiya bu maam El Hadji Malick Sy ki ñu fi fekk dikki topp ci imam bu mag bi daal dinay def ay seede yu am solo ci moom waaw taxawaay bi fii ci zawiya bi man lañu dénk kaamilu alquraanu zawiya bi sëñ Abdou laata moo dem sama loxo la ko teg may jàngale fi xam-xam nekk tam deuxième imam maa topp ci imam bu mag bi maa topp ci moom waaw alhaji Abdoul Aziz <laughs> li ñu mun ci wax ci moom bari na ndax kenn munta wax ci moom ba jeexal ko ndox di euh, ko yàlla mooyoon dafa bari dafa nekkoon nit koo xam ne kii waliyu yàlla bu mag la nekk boroom xam-xam bu mag nekk boroom jikko bu rafet nekk boroom xol bu rafet bugg ñëpp sëñ Abdul Aziz ba mu demee ba léegi nit ñi fàttiwuñ ko seen xol sëñ Abdul Aziz dundam même chrétiens yi sax bugg nañ ko am na chrétiens yoo xam ni dañ ko tudde doom ndax sopp ko ak bugg ko ak li ko yàlla defal kon sëñ Abdoul Aziz wax ci moom day jafe tuuti xanaa xuus ci tuuti rek mu nekk doomi Seydi Hadj Malick moo ko jur Safiyatu Ñaŋ mooy yaayam mu juddoo Tiwaawoon màgge Tiwaawoon baayam jàngal ko Seydi Hadj Malick jàngal ko xam-xam waaye xam nga nitu yàlla yi dañuy jël seen doom dénkaane ko mu jël sëriñ Abdul Aziz dénkaane ko ci benn borom xam-xam bu rëy tudd Hadi Touré ca Louga kooku nag moo tarbiya Alaji Abdul Aziz def ci moom xam-xam bu bari def ci moom tarbiya bu bari ak xam-xam boo xamante ne xam-xamu baatin la muy sëñ Hadi Touré kooku sax dem na ba nga xam ne yàlla woon na ko moom sëriñ Abdoul Aziz li mu am sax moom amu ko te mooy sëriñam moo ko jàngal waaye nag yàlla moo mel noonu mu nekk koo xamante ne fii ci Sénégal sens la woon ci Sénégal ndax sëriñ Abdoul Aziz turam génn Sénégal mu ngi ci àddina bi partout foo dem rek mu ngi turam mu ngi foofu ndax mbaaxam ak jikko bu rafet ak bugg nitam moom ci boppam buggulul boppam dara da faral di wax ci dundam ne man de yàlla su fekkoon ne yaatal nga safara ba sama jëmm bi xej fi ma wuuti ñépp ci safara nga dugal ñëpp aljanna dana wax loolu wax boobu lu ko waral nekk nitu yàlla nekk tamit nit ku baax nekk tamit borom xol bu rafet bugg ñëpp bugg jàmm ñu nemmeeku fa ay ndaw yoo xam ni dañuy ñëw ci boobule bërëb ngir ziyaar waaye itam di fa sàkku xam-xam. waaw teewaay ci bërëb bi nag moom dama ciy sant yàlla bu baax ndax di da bërëb boo xamante ni bërëb bu fàttalikukaay la waaye tamit bërëbu taarix la mu marqué loolu ci histoire Sénégal tey tamit. saa boo fi ñëwee rek sa xel bi dafay dem ci ki nga xamante ne moo ko fi sampoon muy kan góor yàlla boobu di jàmbaaru lislaam muy Cheikh Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala an warda wana bi hamd yàlla ñu ko yàlla fayal te taas ñu ci barkeem bi jaay Seydou sa bërëb bi nag moom da bërëb boo xamante ne bu sacré nekk fii ci poumon wu dakaar yàlla dogal ni tamit bon bépp jaamu yàlla bi nga xamante ni tey yaa ngi fii teew c'est pour nga ñëw retrait spirituel ñëwaat dellusiwaat ci yàlla diis sa soxla fii nga xamante ni moo di barke borom bërëb bi man dama fi faral di ñëw parce que bërëb la boo xamante ni fii moom mun naa ne gëj fi sax erreur la waaw muy bërëb boo xamante ni di bërëbu ñaanu ñaanukaay di bërëbu tamit jaamukaay yàlla waaw tey fu mu nekk nii téere xam-xam yaa ngi fii nii ci ginnaaw ñuy jàngale boo fi ñëwee téere boo fi indi fii ñu jàngaleel la ko donc loolu yëpp c'est dans le cadre ci liggéeyu Cheikh Seydi Hadji Malick ba muy samp zawiya yamay ko woon rek pour jàkka pour jàpp julli mais déedéet c'est un lieu de formation spirituelle loolu moo taxoon ñu samp zawiya bi te moom ci dynamique boobu la ko sampee woon waaw kooku lu ñu mën a wax ci moom bëri na lool lool lool sax daanaka bu doon wax ci moom fii ak suba sax lu tax ñu jóge fi parce que koo xamante ni dafa yàgg taxawu Sénégal ci zahir ci baatir dëkk bi fu mu mosoon a jaxasoo muy te kàddoom benn la bu xësee ba jip rek moo xam woy politicien bi ak ku nekk ci wàllu kujjee bi lépp day teg lu mu bàyyoon ndax xam ni kàddu dëgg la te dëgg rek lu mosoon a wax du ko woon wax pour parloo mais da ko doon wax pour sauver askan wi di delloo si nit seen borom di bàyyi nit ñi leen xam leen ni ëllëg dee am na te loolu nag tey actuellement ñun daf ñoo manqué ci Sénégal gi kuy wax loolu ki nga xamante ne bu njëkk bi demee ba jaxasoo muy taxaw wax te du ci am benn contrepartie tey ku mel ni moom abdu dem na waaye xol yi mi ngi tooy du mës a jóg ci moom moo tax bés bi bésu fàttaliku la ci moom ci ay jëfam yi nga xamante ni yàgg naa taxaw Sénégal fu ne ci zaahir ak ci baatin waaw wax dëgg yàlla dañuy ñaan ci yàlla moom mi nga xamante ni moom mooy borom may yàlla nañ ko yàlla fayal maam Abdou parce que maam Abdou amuñu fayam dañuy ñaan yàlla mi nga xamante ne moom mooy borom pay yàlla nañ ko yàlla fayal ñu taas ñu ci barkeem yàlla dëkkal ko ci géeju leer bi jaay Seydou Wajur ci noonu ñi ngi ñaax ndaw ñi ngir ñu sukkandiku si góor su baax soosule ak ay jàngaleem ndax njëriñ kase la. waaw xam nga ndaw ñi dañoo fekkwul jamonoom nit ñi fekk jamonoom fekk waxtaan yi mu daan waxtaan ci événement yi xew kon ndaw ñi suñ doon jege mag ñi dañ leen wax waxtaanu sëñ Abdoulaye lay jëriñ. ci ñoom lan lay liggéey ci ñoom lan lay defar ci ñoom waaye ndaw yi duñu jege mag ñi ndax ñoo fekkuñ sëñ Abdou ndax sëñ Abdou garawu 68 boobu yéen juddugu leen sax ci la tàmbalee di wax te dafa amoon fit boo xamante ne président bi fi mënti nekk day jàkkale ko wax ak yow ne hee defal lu jub defal lu baax mu jàkkaarloog ñi nga xam ne ay politiciens lañu mu wax leen la nga xam ne mooy dëgg. kenn ku nekk dina la wax fa nga war a taxawee ak na nga war a defee pour réew mi am jàmm ba rawatina Abdou Diouf mu wutoo histoire yi fa amoon yëpp moo ko regle bu ngeen seetee dégg ngeen ko diggante alkaati ak gendarmerie yi keroog bu boobu moom dina ñaaw waaye moo dox lépp waaye xale yi bu ñu doon déglu mag ñi di dem ci mag ñi di laaj kenn mooy sëñ Abdou ci ay jikko yu rafet ci bëggoom jàmm ci bëgg senegal ci buggu maanaam ñëpp am jàmm kon du demee nii. waaw ndaw ñi dina baax torop pour ñu ñaax leen parce que man ak samay moroom yëpp parce que référence dafa am solo mais tey ki nga xamante ni mooy sunu sëriñ di maam Abdul Aziz Sy Dabakh radiallahu taala anu daan soññ bu baax ndaw ñi ci wàllu seen liggéey wàllu fulla wàllu njom wàllu jub ci wàllu jaamu yàlla donc tey Sénégal manqué wu référence tey ku mel ni góor googu tey référence la kooku rek doy na référence fii Sénégal donc tey ndaw ñi samay morom ak ñeneen ak ñëpp nañ jël référence ci góoru yàlla googu noonu te xam ni ku yàgg a taxawee lislaam ku yàgg wax ci yoonu diine lislaam ku yàgg wax tam ci yoonu ndaw ñi pour bu ko defee ak tey crise yi nga xamante ne moom ngay gis tey ay dem jël gaal crise agression tey mënoo toog tey Sénégal benn fan ñaari fan te déggoo rey nañ nit waaw léegi nag tey ndaw ñi bu ñu bëggee seen ëllëg baax ak seen tey tamit baax nañ jël référence maam Abdoul Aziz ci njàngaleem ci ni mu doon doxalee ci jamono. atum 1997 la ko woon ci àdduna waaye ba tey mu ngi sax ci xol yi ak ci xel yi.